asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ku dégg suñu kàddu xam ni kàddu soññee la kàddu woote la ñoo ngi woote ci liggéey bi nga xam ni mooy liggéey xelkom gi di di woo képp koo xam yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah te nekk fii Thiès ñu koy ànd ak sunu jëwriñ sëriñ Papa Diop ak sëñ Lamine Seck ñuy wax mbokk taalib yëpp képp fii si marché central soññee bi fii si marché central képp koo xam ne bëgg ngaa dem boo dikkee fii di ñu gis boo jëlee sunuy numéro di ñu gis waaw départ bi fii nag si buntu église bi fii képp koo xam ne bëgg ngaa dem rek boo dikkee fii si marché présen bi rek joxe nañ sunuy numéro di ngeen ko gis waaw ñi si woo bépp commerçant di si woo bépp autorité goo xam ne yaa ngi nekk biir Thiès te yëg liggéey wi nga xam ni amuñu leen lu dul moom ñu ngi siy woo bépp murit bépp jullit joo xam yaa ngi si biir fii cees ak li ko wër sëñ Pape Diop moo ngi lay woo ñun nag ñun ñaay ndaw yi nga xam ne ñu ñoo ko féete fii si marché central ñoo ngi woo képp koo xam ne yaa ngi nekk bii fii marché central ñoo ngi lay woo fii nii si liggéeyu mbàcc mi ñii départ bi nag la vingt cinq la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki julli di mbokki talibe yi ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli ci yenent bi alayhi salaatu wa salaam di gërëm cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul di ñaanal fadilati cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko te wéral ko balim naa la liggéeyal islam lépp mat ca nu ànd koog moom. waaye noonu la ni siyaare Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Saliou ak rakkam yëpp di ñaan sunu borom yàggal leen ak mboolem kilifa yoonu Euh, islam yëpp fu nu mën a nekk ñoo ngi leen di siyaar su ngeen déggee kàddu yi nag xam ni xel Xelcom moo ñëwati moo tax ñu def jotaay bii ca dend ak sunu jëwriñu bopp ji di Serigne Pape Diop. jëwrin mi nga xam ne mboolem ndongo bu nekk cees ak li ko wër mooy mooy mooy sa mooy sa mooy sa jëwrin ak sëñ moor mi nga xam ne moo jël kaddu léegi nga xam ne mbooleem ñu nekk ci marché bi moom it yàlla def na muy seen jëwriñ ak ñoom ñi ñu ko mu ko mu ko àndal kon mbokki taalibe yi woote bi daal woote xel kom la ñoo ngi woo ñëpp góor jigéen mag ak ndaw liggéey bi nag vingt 25 novembre la incha allahu rabbi di tombeek juma mooy doon départ bi ren nag li ko oot lek at yi daan jàll at yooyu dañ daan gont waaye ren jii nag suñuy dem incha allah rabbi eh, le 25 boobu dañuy xëy kon ñoo ngi soññ mbooloo mépp képp koo xam ne nar ngaa dem nga xëy si waaye ñoo ngi ciy woo mboolem ñi ngi bokkal islam bi ak ñi ñu bokkal yoonu murit ak fu mën a nekk. ci liggéey boobu nga xam ne sëñ Saliou dañu woon su ma wóoroon ni ñëpp dem nañu xel comme ma bàyyi ko woote kon li taxoon ma koy woote bëgg ñëpp jariñu ci islam rek ko waral ak yërmandeem ju rëy ja xel kom googee nag moom la ñuy woote liggéey bi moo ñëwati ci kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Saliou ñoo ngi ci woo ñëpp waaye di ci woo ñi nga xam ne sunu borom jox na leen wërsëg ndax dañ fay soxla ay oto lu mel ne ay dafa soxla lu jëm ci wàllu dund dafa soxla lu bare bare bare bare loo xam ne daf fay jëm kon mboolem ñi xam ne suñu borom da leen a mën a mën gan ñoo ngi leen ci woo ci seen wàllu wërsëg ñi nga xam se ni yàlla daf leen a may kartan ñoo ngi leen di woo ca liggéey ba ñu fas yéene caa ñëw ñu ànd ko ak ñoom soxla nañ ci ay oto ndox nag soxla nañ ci mboolem matuwaay yi nga xam ni dafa baax ci tool lu mel ni ay fourchette yu mag yi ñuy jëree lu mel ni ay ratu yi ñuy bàccee lu mel ni ay xotti saaku ba ci ay xotti béton 20 litres yi yooyu yëpp dañ ko fay soxla ñu ngi woo ñëpp di leen jox rendez-vous incha allah rabbi le 25 di leen xamal ni daal incha allahu rabbi lañ fay bëgg mooy li islam di bëgg lañ fay bañ mooy li islam di bañ ndax kenn ku ne déggoon na sëñ Saliou nii loolu islam awma ci yàq awma ci defar kon kuy ñëw na nga defar sa jëmm ca xam ni si yiw da ngay sàkku si tiyaaba ca loolu koy sàkku da ngaa a defar sa jëmm ñoo ngi ci woo ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu ci jàmm di ci woo ñëpp ci seen wërsëg di ci woo ñëpp ci seen doole fas yéene daal la sëñ Saliou woon du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal ñu ne ñu fas yéene koo yaatal ca yaatalam googee ngir ñëpp mën a jariñu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aouzu billahi min asheytaani rajim wa inni aouzuha bika wa durriyataha min asheytaani rajim rabbi aouzu bika min hamazati shayatin wa aouzu bika bismillahi arrahmani irahim wa sallallahu taala ala sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi Cees ak li ko wër ñoo ngi leen di nuyu di leen yëgal woote boo xam ni ma nga jëm xel koom kem nañ ko daan defee muy tool yoo xam ni tooli Sëriñ Saaliw woon yoo xamante ni moo ko sosoon ngir jariñ ci jaam yi ñu koy woote nag kem ni mu ko daan wootee liggéey ngir jariñul jullit yëpp ak taalibe yëpp nam ko daan defee sëriñ seex mi nga xamante ni moo ko fi wuutu yàlla na ko fi yàlla yàggal ak ay rakkam di ko woote kem ni mu ko daan wootee ngir bëggit kem ni ca nit ñi daan jariñoo ñu koy ñu ñu ñu cay jariñoo noonu moo waral woote bi ñu ngi ciy woo képp koo xamante ni bii ab taali bi nga daal képp koo xamante ni bii bëgg nga lu baax bëgg ngaa jariñu ñoo ngi la ciy soññ di la di la ci di la ci eh, yaakaar ci ak teew teewaay nag ñaar la teewaay ci jëmm ak teewaay ci jëf ku mën a ku mën ñaar yooyu yëpp nag nga def ko ñoo ngi koy soññee bu baax a baax. Serigne Cheikh comme ni Lamine wax dafa wax wax ju am solo dafa wax ni li li mu waxoon ni bu njariñ la nga xam ne moom la fa nit ñi di jariñoo su du woon loola dootu ko woote waaye gis na ni nit ñi dañ dañ fay dem di ci aj seen mbirum àdduna àllaaxira te noonu lañ koy cee amee loolu moo waral mu koy mu koy soññee di ko woote waaye bu du woon lool sax dootu dootu ko woote. kon nag léegi ñoo ngi leen ciy soññ bu baax a baax ab taalib fu waaye man a ne doonub jullit buñ la woowee ci lu baax yaakaar naa kala ca woo sax yow yaa ko war a yaa ko war ameel ak cant ndax. loo xamante ni bii boo ca xëyee man caa am defarug àdduna alaaxira kon defe naa loolu ku la ca woo maanaam bëggal na la njariñ njariñ loolu nag yàlla na doon loo xamante ni bii yàlla na tasaaroo ci mbokki taalibe yeeg mbokki jullit yëpp ndaxte ab taalibe nag mooy ak jaayante rek képp koo xamante ni bi jaayante nga nag la nga jaayante moomatoo ko ndax inna laa asra minal muminina an fa am amwaalu wa anfusahum wa anfusahum bi anna lahumul jannat la alxuraan wax ñooñee kat ba ñu ba ñu jaayantee jullit yi dañoo seen deret ak ak lañ lañ lañ lañ lañ jaay ak seen ñun nag eh, yàlla day di dox ba buñ nee jaayante laadatul laa kenn laajatul deret kenn laajatul alal. Ah, astaxfurlaa deret deret laajatuñ deret alal la ñuy laaj yaakaar naa lu nit lu nit néew néew doole néew néew kartan loola ñuy laaj waras na war war nga ko man ba tax na képp koo xam ku la képp ku la ci moo la man ba fépp ni sëriñ bi daan wootee ci màggal gi daan wax ni ñaar ñoo xamante ni ñoo ñoo dend kii fonk na kii fonk bu déwénee ka ko fonkoon danga woon ko fonkul woon liggéey bi tamit noonu la takk nañ ci ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo koy ñoo ñoo ci nekk di ci xëy jamono buñ ci wootee ñu cay dem gis nañ jamono bu ne dañuy dañ cay yokk marché bi firnde la ci ndax yaakaar naa ña ca njëkk a dem ñaari nit la ñu woon ak seenu basan bu demee ba nga xamante ni bi dañ cay dem di di di indi ay jël ay biis ak i kaar ak dem kon am na luñ ñu yëg loo xamante ni bii wóor na lu ñu mënut a ñàkk seen dund la looloo waral soññe bi ñoo ngi ci soñ ñëpp di wax ni képp koo xamante ni bii teew nga fa yàlla nga bokk ci ñi nga xamante ni bii ñooñu la sëriñ bi doon wax inna alladina baayon fii xidmati lahum diyaarun wasal jannati wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu salaamaaleykum wa rahmatullah aousubillah bisimillah inna waliyallah barkib sëriñ saaliw barkib sëriñ saaliw di leen nuyu yéen mbokk jullit yi ak mbokk taalib góor jigéen mag ndaw ah, ginnaaw bu loolu jàllee ñu leen di fàttalil Xelcom ji incha allahu rabbi la vingt cinq lay lay commencé départ bi nag ñaari départ la dafa am marché central am kër sëriñ saaliw euh, gi nekk comment dirais ñetti kàdd dañuy départ fii départ foofa bis yi bu ñu déparé marché central fii foofu la ñuy dem pour jël mbooloo mi des doog a dem koom pàcc nag góor jigéen mag ak ndaw te képp kuy ñëw na nga indaale sa jumtuwaay lu mel ni ratu wala fourchette wala gopp bu ñuy bàyyee sax baax na lu waay indi rek incha allah rabbi wala paan wala sio wala euh, kii ventilo yi kubéeru ventilo yi pour lay gerte gi. te tamit bu ngeen ñëwee ngeen fas yéene faa toog ba liggéey ba egg ak jàmm ndax euh, bariwul weekend bi la samedi dimanche la samedi dimanche yooyu loolu yomb naa muñ. ndax lu waay liggéey liggéey di nga am weekend samedi ak dimanche yàggul ñu fas yéene koo taxaw mu egg ak jàmm ñu tourné ak jàmm ñu leen ciy woo yéen ñëpp nag baawuñu kenn kenn kenn kenn adresse bi nag comme noonu ma leen ko joxe rek marché central ak ñetti kàddu la jërë ngeen def di euh, ku kiil tamit nga ñëw ci sama jëriñ sëñ Lamine mii waaw sëñ Lamine seek ku ko xamul dégg ko waaw jaa ngeen jëf. ala barakaatu mbokk taalibe ku dégg sunu kàddu xam ni loolu mooy soññee bi comme sama jëriñ ni nga ko fi waxee rek. waaw képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi dem départ bi départ bi huit la fii nii waaw si buntu église bi la ñuy déparé képp koo xam ne ñëw nga fii moom boo ñu boo boo wootee si numéro bi 78 342 47 54 di nga ñu jot bu soobee yàlla di nga dem ñu feggoog suñu jëw di ñi nga xam ni tamit muy sëñ sëñ lamin ak sëñ Pape Diop sëñ Pape Diop mii nag mooy jëwriñu central Thiès fii képp képp koo xam ne da ngaa bëgg a dem xelkom te nekk Thiès fii ak li ko wër da ngaa war a boot si ginnaaw sëñ Pape joom ndax moom la fi sëñ Cheikh def jëwriñ fii na ko ñëpp xam départ bi nag ñun nag dañoo bokk say ndaw nekk marché central fii te buñ paree si moom la ñuy bootu ànd ak moom dem xelkom képp ku dégg sunuy kàddu woo nañ la jullit képp koy wax asadu an laa ilaha illallah woo nañ la si liggéey wii ci liggéey sëñ Cheikh bi ñaa ànde kook jàmm ci barki Serigne Saliou salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu